Gumba Anta Ndiaye ñu gën maa xam ci Gumba Bool géwalu Matar Ba doomu Tiwaawan waaw loolu nag euh, benn jàngat bi ma ci am mooy jàngat bu gàtt rek ñun ay doomu Tiwaawan lan ay porteur de voix lan ñu nekk ci dëkk bi nag bëgg dëkk bi fonk dëkk bi ku bëgg dëkk bi ñu bëgg la ku bëggul dëkk bi bëggunu la ak koo mënti doon tey nag macha allah ma ànd ak samay xarit d'enfance ànd ak papa Nene ànd la Modou ànd ak sama famille ñoom ñëpp ba ñàkk ba dama ni sax naa ànd ak sama waa koñ rek ñëw wuy si sama frère yi nga xam ne ñooy waa kaa Events ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom wax fa dëgg yàlla ma doon seen sponsor leader Goumba entre service jël parrain bi en plus mu doon ñaari bis yoo xam ni jël naa ko ci ma kontaan ci loolu te booy li ma gën a neex ci ñoom maanaam lii du ko fàtte mukk daaw ci heure bi dama ñëwoon ci final bi amoon fi ay dog-dog ak benn homme de tenue ren ñu may seet ba dajanteeg sama rakk Modou Gueye ñu ñëw ñu toog waxtaan lépp rafet ñu ni ma laaju nu la dara loo man rek na ko def kon ko ñun ay doomu Tiwaawan lan ma dem seeti samay xarit seeti samay am di jàmm Mamadou Ngom ñaa jox ma ay moyen Abdoulaye Dieye bu total yëkkati coupe jox ma muy sama xarit di nit ku baax ma ñëw ànd ak samay mbokk final bi nag que le meilleur ndax doomu Tiwaawan lu mu dugg lu nekk da cee war a am ndam ndax macha allah sport soxla noon ku nu jàppale soxla noon ku nu dooleel muy kënf karaté judo basket handball football lépp rek ñoo bokk benn discipline te ki ko yor dafa am discipline muy sama baay di sama manto muy Matar Ba le piment di siin tey ma jëlaat bis bépp delloowaat ci njukkal sama manto sama baay sama xarit muy Matar Ba le piment di siin di sant autorité yëpp di sant Diagne si Mbengue min ko tuddee muy maire Tivaouane di sama nijaay may sant kenn koo xam ni acteur de développement la muy sama xarit yàlla boole maak moom moo koy jàppale ci politique muy Abdoulaye Ndiaye Ngalgu président mouvement ànd defar maa ngi sant autorités yi nekk Tivaouane yëpp maa ngi sant euh, Diagne euh, Abdou Ndéné maa ngi sant bu Gueye Touré li may ñaax autorité yi rek mooy ñun ñëpp ñu dem déglu kilifa dëkk bi muy monsieur Diagne si Mbengue muy maire bi bu ñu demee déglu ko moom ci boppam donc moo am droit dem waxtaan ak ministre Matar Ba mu waxtaan ak moom ñu xool nun def ba defar estaatu mas Moustapha Niang ndax ñun xale yi juddu Tiwaawan yëpp kenn du fàtte lu fi monsieur le maire def muy musa Niang yal na yàlla yokk leeram loolu nag ci compétence su maire la Matar Ba saa yoo ko déggee danaan wax fa dégg yàlla ñun de lépp luñ dégganteeg u dëkk bi dinañ xool luñ ci mën a def ba Tiwaawan ndax budget budget sport euh, war a defar stade yi war a defar Tiwaawan ci la bokk woote nañ budget bi yaa jàlloo nga fa woon waaw wax fa dëgg yàlla kon nag yàlla noonu dund ba defar stade bi defar gazon synthétique ndax ñëpp loolu loon soxla ndax sport Tiwaawan dañ koo bëgg te dañ koo gëm Matar Ba nag ñu ngi lay ñaan lenn ñu ngi lay ñaan man sa doom sa xarit sa sa soppe maa ngi lay ñaan du yàgg dara nga ñëw seet si sportu Tiwaawan nga ñëw waxtaan ak ñoom nga dalal nga gën a dalal seen xel yaag seex saar ndax loolu soxla noonu waaw ci waaw ci ci bépp xeetu sport bëgg naa ñu waxtaan ci macha allah ñu ànd ci man mataar Diouf ak ku ñuy wax ramoon Kota ak ASC yi nekk ci koñ bi yëpp nga dikk waxtaan ak ñoom ci demonu sport ndax sport bi macha allah soxla noonu ku leen jàppale soxla noonu ku leen dimbali. yaag ñoom Ablaye ngal ngalgu ñoom ñëpp autorité bu nekk Tiwaawan rek ngeen xam ne intérêt Tiwaawan moo ciy bénéficier. maanaam ku na xam na ni bu nu jugee ci Covid maanaam sport secteur yi bëri dafa dafa dafa deewoon waaye ku yëkkati maillot jox ko ASC macha allah dimbali nga leen te ku na xam na ni waaj a ñëw ci ci ci nawetaan nga yëkkat ak beneen enveloppe appuyer ko ki gagné ak ki nu gagné tamit nga jafaat ko motivation loolu moo lay wan ni rek sport. kaf la ak ree kon ni ko sama papa Matar ba di waxee que le meilleur waaye nag tey ñaari final yi war a am muy kuli ak ak déggoo yàlla na kuli am ndam ci barke yonent bi ndax doomu kuli la mooy ñëw nañ fi en tant que doomu Tiwaawan ñun amuñu droit def erreur ñëpp suñuy xarit lan wax fa dëgg yàlla kon nag tey bu ma ñëwee man Gumba Bool géwalu Matar ba jël sama entreprise bu ñuy wax Gumba entre doon sponsor leader bi ma ànd ceeg waa K Events du ma def lu dul kontaan ci ñu dund nag ba muy doon ay final yi mag ma koy ànd ak samay xarit je suis très content vive Tivaouane sama yaay yàlla na fekke sama njariñ ci barke Seydina Mouhamad merci. jaajëfal Goumba Anta mii parce que doomu Tivaouane la lii tey am na nu mu doon mel du fi teew parce que comme expliqué na ko ci début bi daaw am na nu mu fi demee waaye terewul ren mu ñëw ak xolam bu rafet vraiment nekk nit koo xamante ne daa am yéene trop ci ci ci ñun ñu woo ko. waxtaan ak moom mu ñëw fi non seulement que en tant que en tant que parrain troisième place mais aussi en tant que partenaire. parce que moom moo ñëw vraiment jàpp ci tournoi bi jàpp ci ligue des champions bi tey def ci jëf ju rafet yoo xamante ni mënuñu ko bañ a sant ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di ñaan yàlla lii mu taxawee ren yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëkku gumba entre service bii mu teg yàlla na ko yàlla yóbbu fu kawee njortam kontaan nañ trop ci teewaayam fii parce que lii rek mo mooy wane ni Tivaouane benn la mooy wane ni ñun ñëpp dara waruñu lu dul jàppalante ndaw la K Events la aussi ñi ko monté ay ndaw lañ donc lii doon na loo xamante ni dafa rafet lii rek mooy jëmale dëkk bi kanam te day won autorité yi aussi que ni seen i rak ñi ngi ci yoon bi donc loolu laa laa am ci lu may wax ba déggal si beneen laaj. stade bi comme ñun ñëpp comme doomu Tivaouane yëpp vraiment Tivaouane mérité na stade bu gën bii mérité na stade bu gën bii li fi jaar ci ay ndaanaan li fi jaar ci ci li fi nekk ci ay jeunes talent aussi. ñu ngi ñaan yàlla di ñaan miins Matar Ba di nga xamante ni mooy mantooram di papaam ci politique di xaritu Diagne Sy Mbengue ñu ngi ñaan Matar Ba moom mu dimbali ñu ngir yàlla ci stade bu El Hadj Moustapha ngi bi que amuñu lu dul moom buñ ci dimbalee vraiment ba ba ba ba mu jàppandal nga xam ne dina ndóog stade yi nekk ci Sénégal yëpp ñun dinañ ko sant nañ ko gërëm